nag jafe-jafe yi école yëpp ko am surtout ak feebar bu bees bi ñuy wax Covid bii mais heureusement alors fekk na ñun euh, ca départ ba donc depuis on n'a manqué wuñu di wuti ay ndimbal manqué wuñu di wuti ay nu ñu mën a jàkkaarloog feebar bi ba nga xam ne bi école tëjee sax bi ñu reprendre cours yi vraiment li ñu amoon ak si néew dañ ko dencoon garder ko bu baax a baax ba nga xam ne bi ñu reprendre amatuñu amuñu yeneen problème yi nit ñi yeneen lycée yi am vraiment vraiment jàpp na ci. jam ñaajo fépp la ñu ko xam ci àddina bi waaw mais normalement benn bëñ la lycée bi mooy benn lycée wu jam ñaajo bi benn bëñ ci gémmiñ olof a koy wax benn bëñ ci gémmiñ dafa war a weex tàll bon mais vraiment euh, sentir ñu vraiment appui appui bu société lii société ci goxu Diamniadio bi kenn xamul nu mu toll sphère ministère yi aussi la même chose mais li ñuy am si néew mooy euh, peut-être am na ay particulier yu ñuy jàppale donc cité naa léegi